xamante ne moom la wax par rapport à yi ni mu ko doon dundee. ni mu koy dundee exactement xadi xam nga en général artistes yi nag euh, bu weeru cor jotee dafay mel ni genre congé ci ñoom ndax dañuy faral di euh, dugg studio di préparer ay yeneen son pour seen fans yi donc mën naa wax ni que weeru cor bi rek lañuy ñuy profiter pour euh, baalu ak seen ay soppe mais xadi xam nga man plateau bi. Euh, invité yi ñu fiy faral di dalal sama ay papa te dama leen di bëgg di boole ci ci rubrique bi honorable mi ngi noonu toog sa wet ak euh, suñu per Gaston xam naa du ñàkk ñoom ñaar rek war nañ mën am anecdote bu ñu bu ñu fàttaliku ci seen enfance ci weeru koor we def ay ay ay kii ñu ngi koy waxee sax ay wooru gaale ay làqatu di lekk ñàkkul moom bi lay doon ah. honorable lan nga ñu mën a wax ci euh, sa enfance ba nga daan woor. man xeeri Touba laa mënuloon muñ. <laughs> xam nga xeeri Touba. lu bi moom ci woor bi la. waaw xeeri Touba moom mënuma koo muñ. <laughs> da daan laaxatu di si di si lekk. xeeri Touba moom neexula muñ. ma ñëw si Père Gaston dañ ko daan préparé ko pour pour. pour affaire yi donc euh, bu commencé xeeñ rek. nga saalit xanaa ñu dem si Père Gaston moom tamit. Ah. man koor bi ma nekkee xale. Mm. xam nga temps yooyu nag njël la ndaat xëdd ak ceeb euh, tàngal ceebu jën bi moom. kooku moom da moom euh, Louga moom loolu jaraloon na ma lu ne. ceebu jën jën. ñu tàngal ko ba mu xóoj. <laughs> kooku moom jaral na ma bañ a loolu daal te léegi yooyu xewi na loolu. ñun léegi gars yi dañoo tubaab bi yooyu. xamatuñu yooyu. léegi léegi ay fromage ak yu kenn xamul la rek. mais xadi euh, du ma du ma du te du ma laaj suñu papa ji oustaz moom moom du ñàkk moom am na anecdote moom. yoo xam ne daal benn bi remarqué naa ni xam nga sunu yaay yi dañoo baax. dañoo am sutura mos naa fekk sama yaay di muusal yàpp. ci beneen néeg bi ci biir fekk ma woor boobu xam naa bi trois heures di jot boobu gisatuma asamaan seeg suuf si sama yaay génn rek ma juyoo ak moom xam naa xel mi nag dafa ñaaw këni kii ci muusal bi la jëm mais ma dugalee yàpp yàpp bi sàqamiwu ko dama doon ñëw rek ma doon ma doon profité pour di ko jàllale mu tag fii tag bi mu tag fii yàgg fii sama yaay ni ma boo sëggul di nga dee de <laughs> boo sëggee ndeysaan mu daal di deñ mais bi ndogu jotee xam nga buñ la jàppee ci ci ci koor li des ci ngoon gi da ngay fair play yow lu nit ñi di yootu di laaj yow da ngay neexal léeg nit ñi di laaj mburu wala luñ ciy diw ak yooyu damay kuur rek. Mhm. sama benn mag bu tudd góor ne ma ba cëgu tey di am na loo ci def <laughs> ndax yow yaru woon nii <laughs> benn yoon boobu daal remarqué naa ni waroon naa waru gàlle. Mm. mais yi ci des yëpp jéngu naa ko ba ba ba ni ma toll. <laughs> la xam am am euh, papa suñu papa Pape Malick également moom bu fekkee ci euh, ci bi mu enfance am moom itam. Uh-huh. Euh, am na ci yoo xamante ne daal na ko def ci koor gi bëccëg gi. wóoru gàlle moom fu mu woor ëpp na leen. <laughs> sama waru gàll ëpp na leen. waaye du rek rek. waa xam nga man dañ ma defaral xëdd. Uh-huh. xëdd boo xam ne dañ ko muusal ba mu baax. xëddu géwél daal xëdd géwél <laughs> ma nelaw foofu bi dënti ma yow gis paxi paxi néeg yi ma seen lu mel ni mu mel ni seen ay jeneer mu leer ma fataat samay bët sama soxna ni ma ah salaatu loon de ma ne ko man salaatooguma laal naa ca nag ba sama xol sedd ma doog a jóg jàpp xam nga léeg-léeg di am xëdd yoo xam ni da nga koy préféré ñu préparé na ko waaye yàlla nattu la nga nelaw waaye man saa yu ma nelawee damay yeewu ndax yàlla yërmandeem dafa yaatu bu naajee wa tàng jër du tee mar ma xëdd man waaw doo fayu ma ko yàlla kenn mënu koo fay bor macha allah alima alima dañuy wax ni séeréer yi ñemewuñu koor de non bii moom ñeme ñeme na koor moom ah. mais wóoru gàlle ñun ñun ñëpp def nañ ko ma mos mos naa wóoru gàlle te li ma dogloo gerte tubaab la woon mhm. ma lekk ko pare ñëw di naan di naan ci frigo bi sama yaay fekk ma fa comme euh, euh, xam nga tukulóor yi dañoo neex dafa amoon potu ndaa plastique yi. Mhm. dako ko daan bii moom rek moo ciy naan. def ko ci biir frigo bi muy sedd bu fa laa fekk may naan. mu ne tay mu ray ma <laughs> mais keroog laa gëj a wooru gàlle ndax njëkk njëtt lañ ma doon dóore. <laughs> mu ngoog kon ay ay anecdote ah, comme Alima nu mu ko waxee pratiquement ñëpp ñoom ñoo jaar. ñoom ñoo si jaar xam naa ay ñoom Fat Abdou ñoom di met du ñàkk bis moom. <laughs> dinañ ñu may ci seen euh, ay anecdote mais xadi xam nga euh, euh, artiste bu fi jaar des fois dafay faral di am ay laaj yu muy jagleel oustaz pour mu leeralal ko ko ci bopp bi laaj boobu noonu bu fekkee noppi na au niveau de la régie rek ñu tegal ñu ko ñu déglu. bokk na ci li ñuy wax naan soo nelawee ba yenn heure yi quoi amoo koor maanaam nga julli fajar ba pare soog a tëdd comme ñun artistes yi dañu tàmm guddee tëdd donc nga julli fajar ba pare tëdd yeewu ay cinq heures affaire yooyu est-ce que am nga koor wala. moo nekkoon la question voilà bi Pagaye Mbaye bëgg oustaz tontu ci. mu mu mu tontu si. <laughs> Euh, dafay laaj question euh, comme ñoom artistes yi guddi la ñuy liggéey mais bu ñu julee fajar ci la ñuy tëdd. sa doomu aadama bu nekk bu ñu la yaree yaru jullit loo mën di wax sedd si sa diine moo xam musicien la dégg nga li wax bu liggéeyee ba julli fajar day tëdd nelaw. nee na day yeewu léeg-léeg cinq heures muy laaj ndax am na koor wala amul koor même buñ koy yeewoon tombeek euh, ndogu jot sax. am na koor mm-hmm. problème bi mooy ki nga xamante ne dafa tëdd di nelaw yàlla dafa am lu mu ko teggil mooy dara waru ko ndax mu ngi nelaw waaye bu yeewoo nag bu tardee julli bàkkaar la ci moom mais ki nelaw bu julliwul yàlla du ko bindal bàkkaar mook mu woor ñooyam moo tax mm-hmm. heure buñ lay wee ndogu jot rek jàppal ni am nga koor mm-hmm. waaye rayante jug ci jàng alxuraan boo mënul jàng alxuraan nga yor sa kurus ndax am na yoo xamante ni itam sunna la ci koor te day déwén rek lay ñëwaat loolu moo tax. Mhm. jërëjëf oustaz je pense que euh, réponse bi leer na xam naa ni amoon na ñoo xamante ne ñu bëri peut-être mi ngi doon lëbëjoo ci seen bopp bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax Khady euh, di la remercier di la jox dig daje euh, beneen yoon incha allah. mu ngoog di la eh, jaajëfal bu baax a baax yow on se donne rendez-vous demain incha allah ak beneen artiste. incha allah Khady. voilà et je vois que internautes yi ñëpp a ngi eh, reetaan ci eh, anecdote yi nga xamante ne moom la ñu nekk ci plateau bi indi je vois même ñoo xamante ne ñu ngi raconté ñoom itam seen ay anecdote di leen di rappeler que mën ngeen poser seen ay question ci suñu ay plateforme muy page Facebook bi wala YouTube bi oustaz Mouhamed mbay dina ci jéem a tontu incha allah comme nu mu ko doon defee démb alors bu ñu jógee ci neche dañuy des ba tey ci salon bi dem ci Jeanne. moom itam mu jukki ñu li mu ñu indil Jeanne uh-huh. merci beaucoup alors comme ni ma ko annoncé woon euh, tout à l'heure uh-huh. euh, dañuy dem euh, xool yi ramadan chez les jeunes ñu xool nag ndaw ñi moom naka la ñuy passé seen mois de ramadan ñu dellu si ci plateau bi